mbokk yi ñu ngi fii nga xam ne mooy Mbawar Fall Couture euh, fekk fi sunu xarit Cheikhouna Ndoye fekk ko mu nekk ci liggéey bi confection wu blouse yi macha allah ak taxawaay bu am solo ñu nuyu ko bu baax ziar ko nuyu Mbacke Cissé moom it nga xam ni ñoo ànd ci liggéey bi euh, Cheikh ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateur yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Bamba ñu ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu Mourou Seck président di nuyu président Bayri mi nga xam ne mooy sunu njiit fii Mar di nuyu ñëpp di nuyu tamit euh, ñi nga xam ne ñoom ngeen fekk si fi muy Mbawar Koutiir waaw di nuyu membre yi Mbawar Koutiir yi ñu fekk yëpp buñ ci jiitalee Moustapha Thiandoum rek yóbbaale na ñëpp ndax euh, mooy magu atelier bi kon buñ ko ci jiitalee nag daanaka yóbbaale na ñëpp. tey ñu fekk leen ci liggéeyu blouse yi dafa mel ni tàmbali ngeen booy waaj a pare mën nañ xam ñaata fan ngeen ñëw li nga xam ne mooy seen bon de waaw euh, bon de commande bi nag ñu ngi ko ñëw ci trois semaines trois semaines ci lañ ko ñëw. Mhm. trois semaines yi amu leen ci benn jafe-jafe. waaw am nañ ci ay jafe-jafe ndax euh, yaakaaroon na ni blouse yi neex na ñaw wala dara mais tamit gaawul loolu daal niñ ko fooge woon ni moom la gaawee tamit tax koo gaawee noonu waaw. yéen a jàpp ne dafa gaaw daal. waaw dañoo jàpp ne dafa gaaw mais yàlla dimbalul nañ ci moom ba tamit Euh, équipe bi fi nekk moom am nañ ci passef bu baax a baax. dafa mel ni équipe bi ay xale yu sawar ñoo fi nekk parce que gis nañ leen ñu toog concentré wu di liggéey liggéey bi euh, tey ji nu ngeen def ba former leen parce que dafa mel ni marché yi yéen koy soog a waaw ñi ñu ngi koy soog am mais euh, boo fe boo nekkee xale yoo xam se ni nangu nañ ba pare sawar ba pare gëm seen liggéey. yaakaar naa man nga ci bañ am benn jafe-jafe te loolu moo nekk Baol Couture waaw dañoo sélectionné rek ndax Baol Couture la ak atelier Mbacké ñoom lañ boole indi leen fii def ko benn seen boo xam se ni eh, ci lañ doon déroulé daal. Mhm. waaw tey jii yéen a ngi ci dégg nañ ci ay jafe-jafe ci wàllu bio bi ngeen doon ñëwee muy matière premier yi dégg nañ ne amoon na ay jafe-jafe manquant ba pare ci marché bi aussi tamit ñu augmenté prix bi ndaka ngeen dundee loolu. waaw eh, ñun nag amuñu woon jafe-jafe manquant bi ndax eh, dañoo dem rek jëndoon lépp rek tegoon ko benn yoon waaw c'est que tamit la joxee moom moom jëndal li nga xam si ni moo ci war rek yow après nag di nga noppalu waaw mais seer geeg yooyu moom xaw na koo def waaye tamit moom amuñu woon problème mu manquant daal mhm. a ah, maanaam da ngeen a xaymal li ko li nga xam ne moo ko doon doy wala da ngeen a tànte woon rek jënd noonu far mu yem ci nag waaw dañoo tànte woon rek jënd noonu mais biñ xayma tamit tànte jënd noonu yàlla suturaal nañu ba kaddu la lañ manqué quatre rouleaux pas quatre box de quatre rouleaux. donc moom lañ manqué. waaw manqué woon sax box ru quatre rek lañ manqué. Uh-huh. te defar nañ ko. waral mooy da ngeen a teel a jóg rek teel a dem wuti seen matière première yi ngeen di xam ne moom ngeen di ñawee. Hmm, waaw dañoo teel a jóg rek xam nga liggéeyu état buñ la joxee li ci war. da ngay da ngay def li ci war rek pour mën a noppalu mais boo dee korkora wala ngay jaay a bëggee wala dara tamit ba dara day fi jàmbur tamit da ngay mujjee tooñ rek uh-huh. te yaakaar naa war nga cee def sa kéemtulaay kàttan même boo dee financer ba dese woo dara sax yow financé la xam ne yow li la waroon def nga ko di xaar nag après nag lu ci am rek nga xam ne loolu la yàlla dogal. am na ñuy jooytu it tisi bi ñi dafa bari est-ce que yow loolu dal na la. waaw loolu moom moom am nañ ci problème bu baax a baax a baax sax ndax presque dese nañ ay cinquante quelques rouleaux te xam nga loolu dafa bari cinquante quelques rouleaux loolu ëpp na torop sax torop. cinquante et quelques roues la moo leen dese actuellement nii. cinquante quelques roues la moo ñu dese. waaw loo xam se ni dagg daggaguñ ko te duñu ko dagg. moo ci des. loolu ngeen defam ah xanaa jéem a xool rek bu ñu amee kuñ ko jaay jaay ko bu ñu kuñ ko jaay tamit. teg ko di ko xool rek. mu doon ñi leen ñi leen ko joxoon tamit est-ce du ngeen dem ci vers ñoom expliqué waaw loolu moom yaakaar naa tamit dinañ ko bàyyiwaat ci yéen. yéen ñi nga xam yeneen suñu njiit. dinañ ko bàyyiwaat ci yéen. su fekkee seen loxo joti na foofu ngeen euh, dimbali dimbali ñu si ndax euh, damay waxaaleel ñëpp ndax am na ci ñoo xam ñeneen ñoo xam seen i tamit problème bi ñu dal ñun moo leen dal waaw kon nag euh, loolu moom ñu ngi koy yóbbante Mamadou Seck mu jàppale ñu si bu fekkee dinañ ko mën a jëlaat ñu jëlaat ko loolu daal moom ñu ngi ko koy yóbbante te di ko wax. parce loolu xaalis bu bari la nag. loolu loolu xaalis moom. buñ buñ ko joxoon tay jii nii mën naa cee màggale moom jënd ci nagu nagu baax kay. Ah. waaw waaw ya ñun màggal rek la ñam duñ xott duñ ñawlu màggal rek la ñuy xott la ñuy ñaw la ñuy feetu la ñuy noos waaw am na solo am na solo loolu mooy kàddu yi Serigne Cheikhouna Ndoye euh, moom mi nga xam ne moo jiite Mbaor Fall Couture ànd ko ak euh, ki nga xam ne mooy Mbacke Cissé macha allah dégg nga li ñu joytu li ñu joytu la ñëpp di joytu parce que tissu boo xam ne da nga ñëw ba pare desal ay cinquante et quelques rouleaux loolu faaw euh, DER wala ministre ñu taxawaat ci xool nañ ci dimbale artisan yi xañ na appel bi jaarale na ko ci président Mamadou Seck waaye xañ na dana àgg ca ñoom ñu mën ko génnee ci njëg gi nga xam ne moom lañ di liggéeyee dafa naa dana ca bari loolu kon loolu faut ñu taxaw ci wutu ci solution parce que tissu boobu mënuñu ko denc te mënuñu bi di ko jaayaat te DER mën na ko récupérer waat remboursé leen seen xaalis aja ñu bàyyi la nga def kàddu waaw suñu xaadim ñu ngi sant rek eh, di sant RTT TV nga xam se ni directeur bi Xaadim Soumaré la muy mbokk mi taxaw ni suñu wet wax dëgg yàlla mu ciy liggéey liggéey bu am solo tamit waaw bañ ko ko santee bañ ko ko joxee ba léegi daal amuñ ci dara lu ñu miti miti ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla sëñ xaadim li ngay doxalee liggéey bi kontaan nañ ci waaw xanaa gën a yokku rek waaw ndax paaka lu mu ñaw ñëw du tee nga du tee nga nàmm ko